ak sëriñ maam Cheikh Mbacke bu AIS njiital sëriñ Babacar Cissé ah, ñu ngi dalal sëriñ Alioune Sànqe bisimilah. bisimilah mina seytaana rajim bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sunu gan gi ñëw léegi di madame la ministre de la femme madame Fatou Diané. di nuyu monsieur le gouverneur ak délégation bi mu àndal yépp di nuyu monsieur le sous-préfet di nuyu délégation waa Koki yépp autorités yi fi ànd yi ñépp di nuyu ministre conseiller du président de la république di madame Awa Diop Mbacké nga xam ni mooy directrice su Badeya mooy bureau d'assistance au Dara et aux diplômés de l'enseignement arabe nga xam ne yéen sëriñi daara yi nga xam ne ñoo la le président recevoir woon di leen woon danaa leen nomel koo xamee ni mooy yore daara yi mooy madame Awa Diop Mbacké mi nommé na ko mooy ministre conseiller chargé yore yore lépp loo xam ne mooy ndey daara yi di nuyu kenn aussi tam ci délégation bi di madame Khoumba directrice de la petite enfance ngay xam ni ça ne fait même pas cinq jours ñëw na fi ñëw na fi di entre euh, di di di di la case des tout petits ak semaine de la boole kook semaine de la petite enfance mu ñëw defee su ko fii kokki muy koo xam ni xaritu daaray kokki la ci gàmmu gi rek yónnee na fi daagem indi fi ay daara yoo xam ni lu mucc ayib la indi ko fii ci daara ji kon ñu ngi koy sant di ko gërëm damay wax foofu rek ni ñun ñi ngeen def ci daara ji ñun waa kokki ngeen ko defal ndax nun waa kokki nun la yàlla baaxe ñu dikki indi fii daara ji ci kokki lu ci waroon dundal daara ji nun ñi ñoo ko waroon def bu ñu amee ay nit nag ñoo xam ne ñi nga jóge ca kaw indi di jàppale daara ji nun duñ def lu di leen sant di leen gërëm na ngeen xam ne yéen ñëpp sëriñ bi ni mu ngi fi waaye da ngeen xam ne population kokki yëpp commune kokki yëpp ngi leen sant ka gërëm ndax nun la waroon ndax la ko yàlla defee ba mu ñëw fii dikki teg teg fi daara ji loolu jiitu ñun ñëpp xëy na yiwlu ko yàlla defuloon ci nun kon ñu ngi sant ñu leen sant bu baax bëri na ñoo xam ne ay ressources daara ji ñëpp a ngi fi ñoom itam kenn demul lu des bi ñu jàngee ba pare lépp lu ñu am delloo si nañ ko ci daara ji ñu ngi leen bu baax en tout cas di leen xamal ni daal nun képp ku def ci daara ji rek nun ko ko defal di sant waa Koki yëpp di gën a wax daal di leen gën a ñaax lu ngeen mën ci daara ji lu ngeen mën ci diina ji ku ko def doo ko rëcc mukk ci ko àddina di leen wax nii daal sëñ bi sëñ Matar ñu ngi lay nuyu di la ziar du nuyu waa daara ji ñëpp di jaarale ko ci président association les ressortissants di daara da Koki du ko mu jot la sama nuyoo waa daara yëpp du nuyu sëñ Basiru Mbàkke mii nga xam ni Xaadim Awa Ba moom itam euh, ku baax yaroo fii ci sunu kam jànge fii ci daara ji ak sëriñ Mbuub monsieur le maire di sunu collègue moom itam di ko sant bu baax di leen gërëm ñoom ñëpp daa ngi dégg itam As Ndaw ñooñu ji def ci daara ja bokk ak ñëpp kenn ku ci nekk da nga mën a yaa ngi koy defee kon sant na ñëpp di gërëm ñëpp yàlla leen yàlla defal jàmm dañuy doog a jot ci maire bi nag lu nag ren la suñ premier mandat di ñaan yàlla lu ñu am li ma ko waxee sëriñ bi barki démb rek nee naa ko duñ def dara fas yéene wu dara ci réew mi ci dun la tàggu ñun daal jékkaloo suñ bopp di sàkku ci yow ñaan nga yàlla defal nu jàmm di ñaan nga des yàlla defal nit ñi jàmm jàmm am ci Sénégal lépp nag di ko sant président de la république ndax wax dëgg yàlla ni ko sëñ Cheikh waxee léegi sëñ euh, kokki moom desee la tun ko dara lépp mu ñu koy defal kon sant nañ ko bu baax di ko gërëm sëñ bi ñu nga ñaanal nu yàlla defal doo nawet bi ñu doon mu jëm mu doon nawetu jàmm yàlla nawet bu indi ay xéewal indi lépp sawan di baawaan xam ngeen ni ren moom nawet bi xam ngeen ni fii ni mu naqaree ku xool ci sëñ bi tey jii ne lu mat juróom-ñaari yoon li mu liggéey lépp dara di mu texe xam nga ni dara dafa metti kon li nii wax rek képp koo xam ne mën ngaa jàpp ci daara ji mën ngaa def ci daara ji boo yow def ko ndax alxuraan ku koo def doo ko rëcc mukk ci këru àddina madame la ministre loolu laa lay dénk ji li ñu daan dundee nga xam ne daan dem ci nawet di bay ren amuñu dara benn doom amuñu ko benn doom nga xam gouverneur man damaa seede maa ngi moom ànd nañ def tournée dem ci àll bi dara amuñu ko kon ñu ngi sant ñëpp li ci waay mën rek jàppale na ko ci daara ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam da xel day fat maa ngi nuyu koo xam ne président conseil départemental moom itam man membre laa ca conseil laa ca conseil départemental mais moom itam lu mu am mbéri si la mi ngi koy def ci daara ji mbéri maa ngi lay nuyu bu baax di sant nag ma jéggal du sa bañ laa yëg bañ waaye xalee fat sant naa bu baax gërëm na la jërëjëf alaaji mbéri si la dafay doomi Louga di jàmbaar moom itam ci délégation bi la bokk waaye di di kenn ci réew mi li ngeen wax ci soxna Awa Diop Mbakke président jox ko ko ku ne xam na ne boroom këram day daara la daara la donn yor na daara yi doog ñu doog ko jox loolu ndax sëñ Xabbaan Mbakke moom sëñ Fallu mooy boroom këram léegi nag ñu ngi jox kàddu gi ndey daara ñu ngi jox kàddu gi ci président de la république dénk jigéen ñi am yar am teggin di taalibe Cheikh Mahamadul Muntaha